يقول في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أحمده وهو المالك للحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته أما بعد أيها المؤمنون الكرام في ظل ما يجري في بلادنا من عنف متساعد وقمع وقهر مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي يجد الواحد نفسه أمام داعية التحدث عن العنف عنف لفظي يزداد قسوة وشناعة وعنف جسدي لم نعرف مثله في مجتمع في مجتمعنا الذي كان يوصف بالمسالم العنف الاجتماعي بصفة عامة والعنف الأسري بصفة خاصة وهو محور خطبتنا اليوم هذا النوع من العنف يعاني قسوتها ضحاياه وراء الجدران ولا يدرى به بسبب الخوف أو بسبب النفاق الاجتماعي بسبب أو بسبب النفاق الاجتماعي عندنا الذي يظهر الأمور على غير حقيقتها حتى تنفجر في يوم وتظهر الحقيقة مع الأسف ومع الأسف هذا النوع من العنف لا يدعو أحدا حتى الأطفال الصغار بل إن مشاهدتهم للعنف ضد والدتهم أو أبيهم أو الآخرين في البيت في حد ذاته عنف ضدهم فضلا عن العنف اللفظي أو الجسدي الذي يطالهم مباشرة أحيانا ولا شك أن من الحوادث التي نسمعها يوميا ما هي نتيجة للقسوة المستمرة والعنف الدائم الذي يعيشها البعض داخل البيوت ولم يعالج بالحزم والجدية التي كان يتطلبها جاء في الحديث من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه جنتني ñeel na yàlla mi mu ngi wax ci téereem bu tedd bi ne yoon ni la dul lu dul ngir nga doon yërmande ñeel waa àddina yépp noo ngi koy sant te moom mooy ki moom ak cant tey seede amul benn buur bu nu war a jaamu dëgg ku dul moom yàlla di ko seedeel weetaay ci nguuram mbokk ak kenn tey seede sunu sang muhammad ab jaamu la dib yonentam yalla sunu borom nu lay ñaan nga dolli teranga ki xéewal doli mucc ak barke ci sab di sab yonent muhammad ak ñoñom ak sahaba mbolé sen ma ngi leen di denk yeen jaam yalla yi ma ngi koy denkit sama bop ragal yalla mu mag mi di leen ñaaxitim ci top ka ginnaw lolu yeen way gëm yu tedd yi ci li nga xamne moy xew ni ci suñu mi ci violence bi nga xamne mu ngi gën di rek noote ak jëfandikoo doole ci lu ko jarul te loolu yépp doon lu wuute ak njàngale diine lislaam kiy wax de day gis ne mënula bañ a wax ci loolu nga xam ne mooy violence boobu muy violence bi nga xam ne verbal la nga xam ne mu ngi gën di dëgër ak di gën di ñaaw saa yu nekk violence bi nga xamné physique la nga xamné ne anam yi mu feeñal ci suñu jamono yi suñu société bi xamuñu won lu na ndax société la bo xamné ne dañ leen doon sédel ne ay niti lañu kon violence sociale bi nga xamné en général wala bok violence familial bi nga xam ne particulièrement tey ji sax moom mooy suñu xutba mbokki jullit yi xeetu violence boobu muy violence familiale mettital wala mettitalante ci biir kër gi mooy xeetu violence bi nga xam ne ña koy dund ñay jànkoonteeg mom ñu koy dund ci ginnaaw miir yi ci kër yi loolu bokk na ci li tax mu metti nga xam ne kenn du ko xam la tax kenn du ko xam nag mooy ragal ga nga xam ne ña koy dund dinañu ko ragala wax ndax ragal mu yokk wala boog bu ñu ko waxeet kañu ko wax wala ñu ñu ko wax du jëm kaw la tax du jëm kaw nag mooy hypocrisie sociale bi nga xam ne moom la sunu societé nekk nga xam ne toujours dañuy feeñal mbir yi ci kaw nu wuuteeg la am dëgg-dëgg lu wuuteeg la xaw lu wuuteeg na nga xam ne mbir yi noonu lañ mel dëgg-dëgg dañu koy jekk-jekkal di ko feeñal ci biti mu wuute lool ak la nga xam ne moom la ñuy dund ca biir ba keroog nag muy explosé ci bés bu exploser nag ca la dëgg di feeñ dëgg-dëgg Sodemaas nag violence boobu xeetu violence boobu nga xam ne mooy violence familiale mettital gi nga xam ne ñu ngi koy mettital ñenn ci famille yi ci biir kër yi du bàyyi kenn ba ci xale yu ndaw yi ndax xale yu ndaw yi sax gis gi ñuy gis ak dund gi ñuy dund mettital gi ñuy mettital seen yaay wala méttital gi ñuy méttital seen baay wala méttital gi ñuy méttital ñeneen ci membre famille bi ci kër gi ci seen kanam ñu koy gis di ko dund mu doon lu leen di tiital mu doon lu yóbbu seeni fit nga xam ne saa yu jibatee rek saa yu tàmbalee tey jub rek seeni fit day dem ndax bu jëkk ba ñu ko gisoon nañu ko dundee jeexital ga mu bàyyi ca seeni bakken kon dund gi nga xam ne xale yi ñu ngi koy dund violence familiale bi ci biir kër yi rek doy na ci violence bu dal ci seen kaw bokkul ak nag yenn saa yu violence bi ci boppam moo xam bu verbal bi la ci ay yuuxu ak ay gëdd ak ay wax yu metti yoo xam ne xale bu ko déggee da koy blessé si biir xolam bokkul ak loolu bokkul ak tim yenn saa yi sax violence physique bi nga xam ne dina leen laal ci lu umpul kenn ndax xam nañ ne xale yi bokk nañu ci ñi gën a sonn ci sunu société ak ñi gën di dund ñi gën a nekk victime hypocrisie bi nga xam ne moom la sunu société di dundee te wutal ko yeneeni tur di ko rafetalee yeneeni tur te du dara lu dul hypocrisie ak ñàkk dëggu ak ñàkk taxaw temm ci saafara ay mbir ci jub ak ak maandu ak dëgg ba mu faju moo tax sax ci lu amul sikki sàkk lu bari ci faits divers yi ñuy dégg lu bari ci xew-xewi jamono yu metti yu doy yi ñuy dégg boo ko toppoo amaana di nga gis ne résultat wu nga gis ne résultat wu coxor gu dakkul benn yoon ak mettital bu dëkk goo xam ne ñenn ñi ñu ngi koy dund ci biir kër yi derrière les murs comme nañu ko te taxawuñu rekk ko ak fermeté bi nga xam ne moom la laaj taxawuñu régler ko ak sérieux bi mu laaj lu dul rek di ko régler loolu mu wax ci hypocrisie boo xam ne moo jur lu bare bare ñëw na ci xadis yonent bi alayhi salaatu mu wax ne man ashaara ila axihi bi xadiida mu ne képp koo xam ne yëkkati nga ngànnaay joxoñ ko sa mbokk moo xam sa mbokk mbokk mi nekk ci biir kër gi wala sa mbokkum jullit wala sa mbokkum nit képp koo xam ne yëkkati nga ngànnaay joxoñ ko sa mbokk nee na fa innal malaikata tal anu nee na ba nga ko yëkkee joxoñ ko rek ca la malaaka yi commencé di la rëbb fekk na yow sax dóoragoo kon boo dóoree xaw ma nu muy mel mu ne doonte nag kooka nga joxoñ ngànnaay loolu wa in kaana axaaka li abika wa mi doonte kooku nga joxoñ ngànnaay loolu sa mbokk la moo bokkal benn ndey bokk moom benn baay ba nga yëkkee ngànnaay jëmale ko ci moom rek nee na ca la la malaaka yi tàbb tàmbali di la rëbb di la ñaan yàlla baarakallahu lii wa lakum fi quraan azim wa nafaani wa iyaakum bima fihi min al ayati wa zikril hakim innahu taala barrun jawaadun gafuru rahim alhamdu kullu alhamdu lillahi tabaraka wa taala أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة المسلمون أخلاقيا نرفض أن يرفع أحد أفراد الأسرة الواحدة المعتدى عليه بلاغا ضد إلى الجهات المختصة ضد آخر هو المعتدي من نفس الأسرة ومع ذلك يوجد لا يوجد حكم في الأسرة يستطيع أن يرجع الظالم وينسف المظلوم أو على الأقل يحكم بينهما بالعدل مثل هذا الحكم لا يوجد في أغلب الأحيان بل يعالج الأمر باستخفاف غير معقول وبكلام قد يشجع الظالم على الظلم مثله له الحق في أن يعاملك كذلك أو إن لم يظلمك فمن الذي يظلمك أيها الإخوة المؤمنون في ظل نزاع دائم مع عنف مستمر وفي غياب حكم ذي سلطة يفصل بين الحكماء بين الخصماء بالعدل قد يحدث ما لا يحمد ما لا يمكن تداركه أبدا والعياذ بالله كما نسمع عنها يوميا ليس لأحد الحق في أن يؤذي أحدا ولو كان زوجته أو ابنه أو إذا لما لما دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ولا يحق لأحد أن يظلم أحدا إذا لما حرم الله الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد حذاري أيها الإخوة من عواقب الاستهانة بأمور نعتبرها صغيرة قد تؤدي يوما إلى كارثة مثل في المتكرر داخل البيت تانت جيب تانت نيل تبارك وتعالى سنتناكو تانت جو سلم بري بركيل سيدنا أمو بن نبور بنور جام كل يال ويت نعورم بكو كيان سيدنا محمد جام ينتم أنك يال دولي ترانغ خيول دولي كم تجيب بركي ممكن يوم أكيد صحابم بولسين إن أولو يين سبي جولي دي moralement ñun ci suñu société suñu culture du ñu nangu nanguwuñu ci suñu culture moralement kenn ci famille bi ki ñu tooñ kalaame ci yoon ka ca des ci benn famille bi donte ki ñu tooñ tooñ nga ñu ko tooñ biir na donte ka tooñ tooñ nga mu tooñ biir na waaye ñun daal moralement ci suñu culture suñu société nanguwuñu kenn ka kalaame ka ca des ci yoon waaye li ci yéeme mooy loolu dafa ànd ak yenn saa yi du am ci famille bi koo xam ne dina mën a teg ki tooñ ci yoon dina mën a tegaat ki ci yoon jox ki nga xam ne moom lañu ñu tooñ te gëm wala boog au moins ñuy gis muy am muy faral di am kuy ku mën a àtte dëgg-dëgg àtte bu jub bu maandu ci diggante ñaar ñooñu ci benn famille bi kon nag attekat boobu nga xam ne moom moo war a wuutu loolu te moo daan am ci famille yi ak pénc yi attekat boobu nga xam ne moo daan tax du ñu aajowoo di dem ci yoon ndax lu ñu ñaaw te ci suñu société comme dafa wuute comme nekku fi ci lu ëpp ci liy xew li am sax mooy mbir mi daal ñu ngi koy faral di régler ci légèreté boo xam ne bu bu kenn dul comprendre ak ay wax yoo xam ne dañ koy waxandoo di ko répété saabu wi mel noonu xewee ñu koy baamtu di ko waxaat te ñaari ay wax la yoo xam ne bu amee lu muy def mooy day encouragé ki tooñ lu ci mel ni moo la ko sañ a def wala boog bu la tooñul ku lay tooñ ki nga xam ne dañ damm ab loxoom wala ñu toj bëtam wala ñu xaañ ka wala ñu gaañ ka amuloo dara loo koy attee lu dul nakaan moo la ko sañ a def ndax mooy sa nàngam loolu légèreté la bu doy wa wala bokk ki nga xam ne dañ ko tooñ tooñ ko méttee métti boo xam ne boo tegoon sa bopp ci place am di nga nga na amo dara la koy attee lu dul nakaan moo bu la tooñul ku lay tooñ juli di. yi <clears throat> bu fekkoon am na kenn ku saña tal kenn te dara du ko ci fekk kon nit du dugg safara ñu ko fay mbugal ndax tal gum doon mettital am muus te loolu ñëw na ci sunna sallallahu alayhi wa wax ne am na jigéen joo xam ne ñu ngi koy mbugal ci safara ndax muus mu mu takkoon bàyyi ko mu lekk joxu ko mu lekk bàyyi ko mu dem foraatil boppam lu mu lekk kon mettital muus rekk tax na ba nit du gës safara kon mettital nit moom du mat a wax bu fekkoon tamit nit am na kenn ku koo xam ne moo war a tooñ kenn konoon yàlla du xaraamal ak tooñ ci boppam def ko muy lu xaram ci diggante ay jaamam te mbokki jullit yi ay wu dëkk woo xam ne dafa ànd ak violence ci biir kër ànd ak amul ku am baat wala ku nu déggal koo xam ne mën na dox ci diggante ñi jote ci maandu ko jub mbokki jullit yi loolu day mën naa jur loo xam ne mooy lu kenn dootul mën a réparer yàlla na ci yàlla musal comme ni ñu koy déggee bés bu jot kon nag nanu moytandiku mujjug di ñàkkal solo ak di soofantal ay mbir yoo xam ne dañu koy xeeb te mu doon mbir yoo xam ne mën naa jur ëllëg catastrophe te ñu ngi koy dund ci biir kër yi di ko bay bayal di ko seetaan ak di ko di ko régler ak légèreté ak di ko regle ak hypocrisie boobu nga xam ne bari na lu mënu yàqal nanu moytandiku di soofantal ay mbir yu tëkk yoo xam ne mën na xëy jur jëye te jëye yi ñuy dégg yépp jombul kenn na mu xewee feneen ak feneen ñooñu xalaatuñu woon ne dina dal dina leen dal kon kenn képp koo xam ne gis nga ay pettanta yoo xam ne mën na téere ji ci sawara yu mel ni yi ñuy dégg wala ayaasu billah nga teel koo dogaale ci dëgg teel koo dogaale ak sérieux teel